daaray sayidil xaaji malik si radiallahu anhu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nu dellu siwaat ak yéen ci téere bi nu dooroon di nafarandoo di téereb sëriñ bu mag bu ñu wax ibnu ashir tuddee téereem al mursidul muin ala daruri min ulumi diin téere bi gindee di dimbalee ci yi ñu warula réere ci sunu mbiri diine taya ci wara doon sunu jotaayub fanweereel bi ak juróom ñett ñoo ngi taxawoon ak yéen ci jotaay benn mujj ci sarti wérug imaam nit daal balaa mat imaam ba bu la jiitee sa julli mën a wér ay sartam lañu fi mujjoon di waxtaane ba yooya leer ma bëgg la cee tegal tey ay melo yooy aa dana taaral sak nekk imaam comme da koy taaral nag am leen dana taaral sa julli dana taaral jullik ku topp ci sa ginnaaw dana taaral jiite gi nga koy jiite waaye ñàkk leen da koy ñaawal rekk waaye nag ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw du ko teree koy teree wér moom tuddal naa la ko ba ma la ne chartul imaami dakarun mukallafu aatin bil wa xukman yacrifu wa gayru zi fisqin wa laxnin waqtida fi jumcatin xurrun muqiimun cuddida yooyoy daje sag nekk imaam wér kaay ma teg ci yooy buy daje sak nekk imaam di taaru nga xàmmee nag yi koy taaral nii boo ci amul benn koo jiite it julli na julli gaa taaruwul yooya yumu mu ni la wa yukrahu salasu wal quruxu ma baadin li gayrihim wa man yukrahu daa wa kal achalli wa imamatum bila ridan bi masjidin salaatun tujtala bayna al asaatini wa quddaama al imaam jamaacatun bacda salaati diltizaam wa raatibun majhuulun aw man ubbinaa wa aglafun cabdun xasiyu bnu zinaa wa jaaza cinniinun wa acmaa alkanu mujazzamun xafa wa haadal mumkinu sëriñ bi nee na wa yukrahu sib nanu xam nga sib ba jàngee ibnu asir ba agsi fi kon teewu ko wér waaye dana ko teetaaru asalasu imaam bopp dafa ame salas xam nga salas tuddoon naa ko ca ba nuy jàng yi toj njàpp ba ma naan salasu ni daa nadar tegaloon naa la ca ni la bu dee salas boo xam ni nag moom ay la yéwén xayru naadir xanaa salas gu laazim la te boobu tojatul njàpp salas moomu ki ko amee di jiite rafetul donte wér na ndax tojatul njàpp mi ngi julli ngeen baal ma waaye mi ngi yëg ni am tuur ndoxam mi ngi toq mi ngi julli waaye mi ngi yëg ni mi ngi def leneen ci yi toj njàpp tey génne ci doomu aadama moo xam ñam yàlla ndox yàlla ngelaw yàlla salas la tudd loolu bu dee feebar ci imam bi imam bii di jiite wér na de waaye rafetul waaw wa yukrahu salasu ki amee feebar bi moo tudd salis bi kasri lami jëmmi feebar bee tudd salas bi fatxi lami bu la ci neex jàng fiil ji woon comme farixa farixoon mooy ismu fail ja failun dégg masdar mi di faraxun moo yas yaslasu salasan fa huwa salisun boroom salas di jiite rafetlu wuñ ko wal quruxu ak imaam bopp dafa amee góom imaam dafa amee ay góom góom yu bare ñu ne ci yaram wi yii di nàcc yii di génneem ndox yii di tafu ci yére yi imam dafa amee góom amoon na feebar bu ñu daan dégg ba ñuy gone ñu daan ko wax waga góom yu bare lay doon sa yaram wi daanaka yére bu woyof ngay mën a sol ndax yére boo sol rek danaan ñàpp ci yaram wi ndaxi góom waaw koo xam ne góom yii nga ame ngay jiite ah bu dee sarti imaam amoon nga leen boo jiitee mu wér de waaye rafetul dañoo danoo danoo danoo rafetluwul sa jiite wal qurux ak i góom ame di jiite rafetluñ wuñ ko mu ni maabadin ak imaam boo xani buñ koy firi ci wolof donte bareetul nag baat bu diis la nag waaye ñu wutal ko déggin rekk mooy ku dëkke kaw koo xam ni réewi taax yi dafay gëj lool civilisation yi xamu ci yu bare ca kaw ga la dëkk fa la miin fa la féete ñu naan ko kaw kaw ndax xamul dara ci réewi tax yi maanaam bu fi ñëwoon sax amaana nan lañuy lekkee ci niñ ko miinee ci réewi tax nan la ñuy doxee ci territoire yi niñ ko miinee ci réew yi taax nan la ñuy takkee montur ay weer nu ñuy solee semis nu ñuy solee dàll niñ ko miinee ci réew yi taax nan la ñuy duggee ci oto ban oto ngay jël fan nga jëm ñaata nga war a paas normalement yu bare bare bare bare bare bare bare bare yoo xam ni xam leen ak dundugee ànd ci réew yi taax yi dara la ci xamul ndax ay yéwén nitu kaw la maanaam réewi taax yii dafi gëj de bu fi nee tegg tànkam du fi yàgg dara delluwaat ca kaw ga kooku la ñu tuddee baat yi des na ko waxit al badawi kooku nag di jiite rafetlu wuñ ko ndax yu bare waaye jarul dugg ndax ku mel ni kii ñuy wax moom jàpp naa ni bareetul de ndax léegi ku féete ca kaw ga ku fa féete bu ñëwee réewi taax it réewi taax dara ump la fi bu la neexee lu fi yenn nga yëg ko lu fi fanaan nga yëg ko waaw luñ fiy jaay xam nga lu muy jar luñ fiy lijjanti xam nga fus di jaar ba am ko daanaka ki sariya doon wax téere yi daan ko tudd nii ah bareetul de bareetul waaye boo demoon ba gis ko walla nga yëg ko ci sa bopp ni man ci ñii laa bokk yow ngay jiite taamuwuñ ko léegi nag boroom salas boroomi góom ak koo xam ni nitu kaw la amul civilisation wu uh, niti réewi taax yi dañoo sib ñuy jiite li xayrihim kudul ñoom dañoo sib ñuy jiite kudul ñoom boroom salas ñi ngay jiite amee wu ñuy salas nga leen di jiite boobu laa ni rafet luuma ko waaye bu dee salas kay mbas la moo xam ni euh, réew mi yépp ñoo koy dundandoo su boobaa ku jiite ba na ah ku ko ñemee sit bu fekkee ni góom yooyu itam tuusmaa la boo xam ne ñëpp ci jot ñëpp amee góom de ku jiite baax na kenn si ko bu fekkoon ni itam ay la yeween ay niti kaw doo nga fi daje de ku ci mës jam tànkam wala mu xam lu yaatu ci kiltiiru réewi taax seen doxalin ci lépp barewu fi ñoom ñëpp ay niti kaw lañ foofu itam ku jiite kenn si ko kenn ñaawluwu ko kon ba muy sib salas di sib ay xuroox di sib albadawi ci jiite mooy bu ñuy jiite li xayrihim ku dul ñoom dégg ko di jiite ku dul ñoom loolu ñuy wax nag ci albadawi du du du tuutal ko du suufeel ko du doyadal ko xam nga lu ma moom lu bare bare bare bare bare bare da ko yëgul ci yoo xam ni waa fii yëg nañ ko ñàkk gaa day tax du ci am xibra du ci am xam nii lañ war a def du ci am xam nii lañ ko war a defee yu bare bare bare bare bare bare bu ko umpee ci societé bi ba noppi muy jiite dafa am lu muy def ci digganteem ak digganteem ak nit ñi du daa munta wax axaka yi mën naa wax du bët ya daa neexul axaka yi dafa salte déedéet saltewul de lan la kiltiiram ak taax dafa am yu bare yu ci wuute bu ñëwee di leen jiite masalan réewi kaw nit niti kaw jàkka yi ñu amee léeg-léeg néegi ñax lay doon li tax ma ne la bareetul léegi jàkka yi ci kaw yi jàkka yi ci taax yi dàquñ leen néegi ñax la daan doon walay sàkket wala néegi ban dégg ko boo taxawaan di jiite bëgg lu mel ne ñandu walla lu mel ne sëqët war a yàbbi xaxtandiku kooku dinga mën a sànni tëflit wi sànni lor wi mu génn jàkk ji walla nga ñidd ko sànni mën nga koo sànnee sa gémmiñ sa tuñ saw lëmiñ mën nga koo def ci sa loxo wiccax ko sànni ko te loola foofa loolaay silwiise foofa loolaa fa di silwiise kooku bu ñëwoon tey ci jàkka yi réewi taax yi fekk jàkka joo xam ni dañ koo karole karoy marbre taal fi cuuraay taal fi euh, xeeti yi taaru yooyu ah, muy jiite ba yàgg xaaxtandiku dikkal ko bu ko daan dikkal ca kaw ga wax naa la ni muy def tey mu dikkal ko rek mu rattax ko ci miiru karo yi hmm? mbaa mu ñeddi ko ci loxoom diw ko ci moket yi hmm? pour moom lii moo di silwiise pourtant lii mooy ak silwiise ci lim xam mais bu ko defee fii ci réewi taax looy wax danga naan mais kii lu ko dal fekk dara dallu ko lu dul ak silwiise mais gim xam loolu nag lenn la ci ci yi tax lislaam taamuwul ku xamul dara ci réew yi tax amoo seen seen seen seen seen seen seen yu bare bare bare nga ñëw fi di jiite daa bare lool mën nga ko def ndax noonu nga ko xame waaye ñoo wëlbatiku xeebe la ca ndax ñi ngi ko def ci seen kanam xamee wuñ ko noonu buñ ko toppoon mën na gën a yaatu nañ dem ci téere bi waman yukrahu daa waman bépp imam boo xam ni yukrahu dañoo sib ak jiiteem waxuma sib gee ma doon jàngale nag naan zunna yi makruhun wa mahat min xaram waxuma goog googu sariya yi sib sib gii may wax tey nit ñi ñoo sib kii di leen jiite maanaam nit ñee taamuwul mu leen di jiite imam bu mel noonu daa moom itam teg ko fi de moom itam muy jiite rafetul waaw boo xam ni bu mbooloo mi doon téeméer juróom-ñeent fukk yi buñ sañoon doo leen jiite pourtant mat nga imaam am nga zakar am nga zukuriya mu kàllaf nga mën nga indi ponk yëpp boroom xam-xam nga doo lenn ci xeeti fisqu yi doo kuy jàngal xuraan di ko yàq mat nga imaam waaye mbooloo mi ñoo bëggul nga jiite leen te wax dëgg yàlla ñi ëpp ci mbooloo mi la walla bu ñu fi ëpplit lit tànnee fi mbooloo mi la waaw ñi nga xam ni ñoom lañ gën a miine jikko ju yiw ju sell ragal yàlla xam-xam ñooñu bu ñu fi gën bari it ay la yeween amul ci ñoom ku taamu sa jiite nga ni yaay jiite ndax yaa tabax jàkk ji yaay jënd làmp yi yaay fay courant bi yaay fay ndox mi ah jiite waaye rafetul wa man yukrahu daa imaam boo xam ne ña muy jiite bëgguñ mu jiite leen kooku itam di jiite rafetluwuma ko mu ni wakkal achalli noona mu ñàkkee rafetlu seenu jiite laa ñàkkee rafetlu jiite al asal al asal mooy ku sem sem xam nga sem kooku ab cëram mi ngi fi loxo ba tànk ya mi ngi fi waaye dafa sem dafa lemu jëm ak wet mbaa mu sew lool danga naan loxo baa ngi nii waaye nag melul ni loxo yi ñu xam mënul dara am nañu yàlla bindee noonu kooku tudd al asal sem arab day wax sallat yadu loxoom dafa sem bi xatti mansuura sallat kaffuhu salalan ca sunu xilaasu zahab léegi nag ki sem mooy al asal kooku bu amee sarti imam bu jiitee mu wird waaye comme daa sem ak jiiteem dese naa ko rafetlu ku dem lool leer na dana dal ay loxo dana dal tànk sem mi ngi fi waaye mënul dara bu doon tànk tànk yaa ngi nii dammu dagguñu ko waaye mënoo cee dox bu dee loxo mi ngi nii waaye bind sax mënatoo ko ci waaw loolaay sem wa noona laa ñàkkee rafetlu imaamatun di jiite bi masjidin ca jàkka ja bilaari dan te solo mbub mu mag imaam kat bu dee ca jàkka ja lay jiite taamuwuma muy sol si vêtement wala semis rek di julli wala tuba yu tubaab yu xat yi di jiite loolu rafetluwuma ko de imam danoo bëgg ca jàkk ja na sol mbubb mu mag waaw dana taaral ak nekkuk imaamam yenn jàkk yi dañ fay teg lu mel ni kaala ba imaam yi ñu fi xamoon miin leen fi buñ ñëwul ku fi sës fekkul nga indaale mbubb mu mag te set nga daan sol rek ñëw julli si simis nga daan sol ñëw julli si nga mën a euh, jël ci kaala yooyu gàll ci sa kaw mu remplacer ridan ndax sa jiite taaru wa imaamatun bila ridan bi masjidin nekk imaam di jiite ca jàkka ja bila ridan te solo làmbaay lu yaa dañ koo sib rafet luñ ko de noona itam lanu sibee salaatun julli goo xam ni tujju talaa ña ngi koy jooxee baynal asaatini ca diggante poto ya poto ya jàkk yi jumaa yi dafa ame poto ñuy yanu dal bi léegi nag ga ñëw ba rëkk ci poto bi di julli dañ ko sib bul ci sës sa mbaggum ndeyjoor bul ci sës sa mbaggum càmmooy bul ci wéeru poto bi bul ko jege ñëw ba sës ci di julli dañ koo sib waaw daa bokkul ci jàkka ji ah kay bokk na ci jàkka ji lu tax ñu di ko sib tax ñu di mooy ñu bare buñ dugalee seeni dàll ci biir jàkk ji ci poto yooyu lañ koy teg léeg poto bi am fu su mën a teg daal la ca kawam léeg-léeg du ko am dañuy ñëw ba ci fi mu sampe moom poto bi foofu la ñuy teg dàll yi te xam nga dàll wu jóge ca marché ba jóge ca kër ga jóge ca atelier ba yàlla bu mu tooy dàll woowu boo ñëwee duul ko ci biir jàkka ji ah mën ngaa wóolu ak laabam de waaye mën naa dese sobe de nga teg ko foofu ci poto bi nag ñuy ragal ni bu doon dàll wi amee na sobe am na lum bàyyi fii ci poto bi ñu mujj ni daal li gën a wóor mooy poto yi xam nga ni léeg-léeg nit dugg fi teg fii dàllam dégg poto yooyu bul jekk ci julli di ca wéeru sa mbëggum ndeyjooram sa mbëggum càmmooñ walla nga di ca wéer si digg ginnaaw wala ngay sujjóot ci kanamu poto bi dañuy ragal ni fekk nga fa sobe li tax ñu sib ko nag jam ci sib rek mooy bu la wóoroon ni sobee nga fa kay boo jiitee wala nga jullee fa julliwoo ci kaw sobe nga julli mais li tax ñu nii dañ koo sib mooy amaana sobee nga fa mais comme yëgoo ko comme gusoo ko nga jullee fa te moo ne am na fa sa julli baax na de ndax sobe balaa yàq sa julli nga yëg ko waaye bàyyil xel ni fii comme dañ fi tegi dàll ak dàll fi mën a dem fépp fii amaana amaana amaana moom sobe de kon moytu ko rek dégg nga wa quddaamal imaam ay masalaa ngi nag yoo xam ne da ko dugalanteeg yi doon taaral nekk imaam xam nga jullee ci poto yi moom maa moom yee koy faral di def wala bu dee imaam xanaa taxawul ci diggante poto yi di jiite mbooloo mi xëy na kon ba muy naafila ak yooyu ñu boole ko ci wa quddaamal imaam di julli nekk ci sa kanamu imaam dañ ko sib rafet luñ ko de loolu nag mooy boo amee feneen ci ginnaaw imaam foo mën a taxaw waaw imaam na dem ca kanam yow maa moom nga dem ci ginnaaw looloo gën a taaru bu dee imaam ak lu mat ñaar la te ñaar ñépp di góor nde bu doon imaam ak kenn la ñaar lanu bu imaam taxawee nii maa moom day taxaw ci ndeyjooram jooram bu doon imaam la ak ñaar waaye kenn ka jigéen la imaam day taxaw nii ku góor ki taxaw ci ndeyjooram ku jigéen ka dem ca seen ginnaaw bu doon imaam la ak góor ñu mat ñaar imaam dina dem ca kanam ñu góor ñi def sàppe ci ginnaaw imaam nii laa ko taamoo jigéen ñi nag ak lu mën a xew imaam la benn jigéen ca ginnaaw imaam la ak kenn ku góor ak jigéen ca ginnaaw jigéen ña ca ginnaaw wa nisaawu xalfal kulli la ko boroom risaala taabire jigéen moom mu fekk ñuy julli mu bëgg caa bokk na dem ci seen ginnaaw kenn laam ñaar laañ mbooloo lañ jigéen ci ginnaaw léegi nag lii bu mënee nekk xanaa léeg jullikaay bi xat ba yow mi bëgg ànd ak kii julli def ko imaam amoo feneen foo mën a taxaw fu ci kanamam su boobaa nga taxaw ci kanamam kenn siibatu ko kenn sibatu ko bañ ko sib rek mooy daruura amul ci ginnaaw itam mën nga faa taxaw mu ni jamaatun noonu lanu sibee jullik mbooloo baada salaati ziltizaam gannaaw jullik imaam bi fi taqoo di jiite mbooloo te mooy imaamu ratib jumaa ji jàkka ji daa am imaamu ratib imaamu ratib mooy imaamu ratib nag ni ko sariya yi jàppee ak ñu bare ci ñun niñ koy jàppee am na wuute imaamu ratib bu ko sariya waxee mooy imaam boo xam suba tisbaar tàkkusaan timis gee jumaa ay day ni bu ko fi fekk moo koy jiite koo koy imaam ratib kooku julli gu ñuy julli ci jàkk ji te mu ne fi moo koy jiite kooku imaamu ratib saraan ñun nag ki ñuy faral di jàppe ñun imaamu ratib mooy premier imam bi <laughs> dafiy nekk sax waaye mën a jiital keneen dafiy nekk keneen jiite jumaa dafiy nekk euh, di sant keneen kuy jiite su boobaa jàkka jooju am nañ imaam de mën nañ ko barile lool mais imaamu ratib sar'an a ah, amagu fa de imaamu ratib bu fi nekkee mooy jiite dégg nga ko kooku nag laa tuddee ziltizaam imaam bu mel noonu ñëw ci jàkka ji heure ñu daan julli julli mbooloo mi imaam jiite na mbooloom moom imaamu ratib jiite na mbooloom ci waxtu wim leen daa jiite mu leen jiitee ba sëlmal beneen mbooloo ci même jàkka ji ñëw bëgg fee julli même waxtu wi dañ ko sib waaw bàyyil xel bu baax nag li ma wax ak li ma ci tënk li ma ci dugal lu ma ci dugalul génne ko ci dama ko génnee imaamu ratib laa wax kon waxuma bu keneen jiite woon te du imaamu ratib mu jiite mbooloom ñam daa jiite ci waxtu wam leen daa jiite waxuma imaam bu teel a ñëw rek ni bismillah nañ julli dama am fu mu bëgg dem su ña amoon habitude di julli ci ginnaawam heure ba leen daan jiite jot ñu ñëw fekk imaam julli na ba pare ñoom bu ñëwee am nañ droit jiital keneen mu jiite leen ndax salaatul imaami raati bi indiwu ko ci waxtu wam ko daan indi loolu xamaale ko dem naa ci jàkka comme sunu takk yi léeg-léeg fa lañ koy defee xaw ma fu ñu ko jànge takk ci jàkk bi ñu agsee mbooloo mi ma àndal fekk nañu mbooloom jàkk ji julli nañ ba pare mbooloo mi nu ànd kenn ci ñoom daldi dem ca mihrab ba sama xel ni kii daa mel ni day bëgg jiite te daa mel ni mbooloom jàkk ji julli nañ ba pare waaye man yaa xëy na imam ratib bañ doon wax di bareetul ci jàkk yi xëy na du war a garaaw waaye ma daldi àggale saak julli man booba bi ma duggee rek yëg ni tàkkusaan moom def nañ ko ba noppi dama daldi rek li xam man tàmbale saak tàkkusaan bi ma gisee muy jiite mbooloo mi nag dagguma saa gos de dama àggale saa gos donte jàngoon nañu julli faratagoo goo toll gis ñu di ko julli julli mbooloo ci sa kanam daggal nga nga woon ndem rukoogoo bu xaseeru ko mottali ko ñaar tësal mën ta ànd ak mbooloo waaye mooy julli mbooloo mañ doon séentu ngëneelam waaye julli mbooloo mi comme dañ ko boole ci julli yi nu sib ma ni naa àggale saagos doonte man keppay julli bi nu jullee ba sëlmal imaam ak mbooloom julli ba sëlmal imaam foofa mu toog ca mixraab ba mu dal ni mbooloo mi ngeen baal nu lii nu def sax yenn ci téere yi dañ koy tere te mooy jàkk ji julli nañ fi seen jullik mbooloo ba noppi lu ñëwaat di fi julliwaat jullik mbooloo waaye nag dama ciy ñaan ndigal imaam ba noppi ma ne loolu kon lu ñuy dolleeku la ci masala mi ndekete kon mën nga cee ñaan ndigal imaam imaam boobu mujjee jiite mbooloom ñaareel mi moo wax ni ñaan naa ndigal ci jiite gi imaam bee nee naa ko comme julleeguñu tàkkusaan ndax may may ngan nu julli fi julli mbooloo mu ni may naa leen ko ma ni ah loolu kon xëy na naa ko dolli ca la ma amoon ala kulli xaal baada salaati ziltizaam di fa julliwaat jullik mbooloo boolees na ko ci yéenu rafet lu wël wa raatibun sib nañu imaamu raatib xam nga ko léegi boo xam ni majhuulun xamuñ ko de tabax nañu fi jàkk ba mu noppi ñu ubbi ko tàmbale fee joxe faratay fekk ci dëkk bi koo xam ne ay la yeween kenn ci dëkk bi xamu ko xamuñ lum jàng xamuñ fu bokk xamuñ fu dëkk dégg ñu ñëw ni ko yow lañ bëgg a def imaamu raatib bi te xamoo leen ko loolu itam day rafetlu wuñ ko imaam kay loo ko xamadi xamadi xamadi xamadi xamadi nanga xam ndax mat na imaamam déet bu la wóoree mat na ko nga xamaale ci moom donte du farata mbaa ak imaamam dana rafet Hmm? yooyu boo ko xamul mën ngaa dugg ci imaam yamani woon seenu jiite rafetul mën nga cee dal de kon jàppal ni rafetluwuma ngay am imaam boo xam ne xamoo ko kenn ci mbooloo mi julli ci ginnaawam xamu ko aw man walla imaam boo xam ni ubbi na danoo ngeen baal ma buddi ngeen baal ma tuurukaayu ndoxam imaam bi amee na feebar ci tuurukaayu ndoxam ba tubaab bi éliminé ko waaw tuureetul ndox de ci fa mu daa tuure ndox dañ ko éliminé waxuma nag mi ngi fi moom cër bi waaye yeneeni appareil lañ ko monteel yu muy tuure ndox waxuma boobu de man bi may wax muy ubbi na ma boon mooy koo xam ni dañ koo gub dañoo gub dañoo buddi tuurukaayu ndoxam waaw kooka di jiite rafetlu ma ko de wa axlafun noonu laa ñàkke rafetlu imam boo xam ni am aat la am aat xam nga ko am aat mooy mukallaf moo xam ni ngeen baal ma xarafagul duggagul néegu góor kooku li ñuy wax axlaf naan ko am aat magum jëmm la waaye xarafagul duggagul néegu góor de kooku di jiite a ah, rafetlu ma ko de rawatina muy nekk imaamu ratib abdun ab jaam ab jaam di nekk imaamu ratib hmm? rafetlu ma ko de xasi yi am tàpp am tàpp xam nga ko boo ko xamul ci nit it xanaa xam nga ko cim xar xarum tàpp xam nga ko lañ ko def nag ba di ko woowee xarum tàpp buñ ko defee doomu aadama moom itam xasi la am tàpp la di nekk imaamu ratib dañ koo sib rafetlu wuñ ko ibnu zinaa ak koo xam ni judduwul ci anam wu sharia gërëm koo xam ni yaari wayjur yi ko séq ngeen baal ma dañoo juum ba mu gane àddina ci gane àddina gog borom bi gërëmu ko yàlla yàlla jéggal way jur yi jéggalaale xale bi jéggalaale ma jéggalaale mboolem jullit xale boobu nag bu màggoon raw ci penc mi bëgg fee nekk imaamu raatib sariya nee na rafet luwuma ko bal ñu wajaaza dagan nag te ñaawul teew koo wirit inniin imaam boo xam ni daa tuuña tuuña xam nga tuuña tuuña mooy imaam bi cër bi mu daa tuuree ndox mi ngi fi de kenn buddiwu ko kenn éliminé wu kenn tàpp ko waaye daa tuuti lool imaam bii ngeen baal ma tuurukaayu ndoxam ngeen baal ma daanaka rek tuur ndox rek la man baaraam bu sànq lañ la lay nuru kookaay ayn niin bëgg fee nekk imaam mbaa imaamu ratib mën naa nekk wa ama ak imaam boo xam ni dafa silmaxa mën naa nekk dafa silmaxa mën naa nekk mën naa taxaw di mën naa toog mën naa rukkoo mën naa sujjóot mën naa tari dégg nga mën naa jiite ëlkënu ak imaam bu dotom imaam boo xam ni làmmiñ wi am na ci xaraf yi wum mënu yum tudd imaam bu mel ne suma sëriñ daara moo ma jàngal téere bii wala boog ci ñi ma ko njëkk jàngal la bokk imaam Baye Alxaaji Kàbbu Gay miinoon naa lool di dégg ci laminam walla daalliin gi ñu xam ci faatiha mook mag ñu bare daadun jooj yi buñ koy wax daadun la ñuy wax de gu seet wecc ca yàlla waaye yow yow miy dégg wala liin ngay dégg wala laalin ngay dégg te seen walla laalin jooji mu gënal yàlla fuuf fuuf laa wax wala daalin ja ngay dégg ca kanamu kaaba ga wóor laa wax ndax sell gi làmmiñ wi moo ajame am ci baat yi mënu ko wax nees koy waxee dëgg-dëgg am ci xaraf yi munu koo wax nañ koy waxee dëgg dëgg dëgg kooku yi la ñuy wax alkën dotom waaw mu jazzamun boroom ngaana feebar la ngaana waaye xaf fa ngaana gu woyof la de ngaana gu yemamaay la de ngaana gii de ku mu waxul ni dal na ko xamoo ko ci moom amul xet deful yu góom yuy nàcc ak génneem ndox donte nag xam ne ni moom amee na feebaru ngaana xëy na ma ngay xasan wala ma ngay ami picc façon yooyu waaye fesul de kooku itam mën naa jiite bal mën naa nekk imam ratib mu ni wa yi ma nii tàmbale ko ci inniin ama alkan mujazzamun xafa wa hada yi moom al mumkinu yu jàppandi la ci nga amee leen ba noppi di jiite te sa jiite kenn ñaawluwu ko mbokk yi nañu teg foofu sunu baaraam insha allahu taala ñu dellu siwaatee wéyale li des ci bunt bi waratu la bare wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa